yéen yéen gàttanoo nuyoo bi ziyaara bi yéen ko delloo gannaaw nuyoo bi noo ngi gën a sant sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi di gën a sant yi sëriñ bi mu muy suñu lépp tey ak ëllëg ndax lu mat a fàggu fàggul nanu ko te jubóo na ci borom lu mat a ñaan ñaan na ko te borom nangul na ko kon sëñ liggéey sëñ bi rek fi nekk liggéey sëñ bi rek fi nekk eh, liggéey bii nag moom ndokk bi nga xam ne man caa bokkoon fii lañ ma fekkoon ma ànd ko yéen ndokk bi nga xam ne caa bokkoon waxoon naa leen nag ca booba itam bu ngeen amul bu ndokk lépp mën naa nekk ci seen loxo noonu laa ko noonu laa ko xamante noonu bu amul bu ndog amul te dëggu am fu ngeen bëgg màgg fa dana dana dana ko weesu dana ko weesu njor waaye lépp nag nay sëriñ bi lépp nay sëriñ bi bu daal lu ci rax lu néew néew na rek mën na ko yàq ndax sëriñ bi raxul raxul dara digg ak borom sëriñ bi raxul dara digg ak borom kon liggéey bii liggéey liggéey boppam la dëgg la ñuy am chance ñu am tawféq eh, ñu tudd leen ci liggéey bi waaye lépp tawféq Sëriñ Tuubaa la ak paggutif ngeen xam loolu xam ne da ngeen am tawféq waaye liggéey bi liggéey bi Sëriñ tey ni mu doxee ak fii mu àgg niiw na eh, mbooloo mu dug dara tax leen jóg ñu jóg àgg fa déedéet liggéey bi Sëriñ Tuubaa moom moom mooy moom mooy kawee di di wéy kon da ngeen am tawféex rek waaye liggéey Sëñ Tuubaa la ngeen ngeen waaye nag ngeen xamee ko noonu da ngeen ngeen am ngeen tawféex ji nag da ngeen di xam ne seen tawféex la rek waaye liggéey Sëñ Tuubaa la dëgg la kon taxawal ngeen ko waxoon naa leen bu ngeen amul ndog fu ngeen bëgg màgg fa rek dina ko mën na ko dina ko ginnaaw nag alhamdulilah rabbil alamin yéen lii liggéeyu Sëñ Tuubaa la am yéen am tawfeex ci ci ci ci ci ci ci ci ci booloo ci booloo ci kaw parce que ne ànd di sa liggéeyal Sëñ Tuubaa loola alhamdulilah rabbil alamin lu mën a wéy lu mën a wéy ci kaw ngeen xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa rek la yoon kenn nekku ci il faut que ngeen xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa rek la ngeen bi di jiitu pësté bi di jiitu jublu gi jublu jublu gi tegu ci bu ngeen ko defee noonu xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa la ngeen ànd na ngir Sëñ Tuubaa di liggéey Sëñ Tuubaa hmm. kon kon tawfeex Sëñ Tuubaa jii nga xam ne moo ko indi moo leen di gàttandu rek moo leen di niital fi ngeen am fi ngeen di am kon loolu rek mooy li ci am solo xam ne liggéey bi dëgg la taxaw na waaye lépp ci bàggu tëf sëriñ bi la waaye yéen am tawféex ci taxawal liggéey bi kon nag ngeen fexe rek fu ngeen bëgg fu ngeen ko jëmee rek mu àgg fa dara leen mënu doon leen ko may nag loolu la mu sëñ tuwaay kese mm-hmm. sëñ bi lépp na sëñ bi tax ngeen ngeen taxaw ngeen taxaw takku ndax saa yu fas yéene xam ne da ngeen nekk ci liggéey sëñ tuwaay nag ci saayir si mënuñoo ñàkk daal tudd dara ndax comme ni ko ni lu mel ni société comme dafa mel ni kon société la société ndax doxinu jamono la mm-hmm. waaw man dara waaye nag yéen nga xam ne seen société bii moom sëñ Tuubaa ko moom nii mu doxee ak fi mu àgg sëñ Tuubaa rek la waaye mën ngeen sant yàlla ndax yéen am tawfeex bi ñu deen ci tudd la ca des la ca des nag la kon mooy yéen ñi yéen yàlla defal taw ngeen ànd ngeen ànd ci ngeen góorgóorlu nag déggoo ndax déggoo gi ci ñàkk moo dimbali ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen mën a koo saytu mën koo yor doxe ko doxe na ngeen bëgg a doxe màgg mu wàgg fu mu war a euh, yaakaar naa ne déggoo li ci ñàkk a gi li ci indi rek moo di dafa dafa dafa dafa dafa dëgëragul dafa dëgëragul ndax rek la moo ko àggale fi mu àgg ginnaaw dëgëragul nag ala kulli li koy dëgëral muy ngir ànd te déggoo ngir ànd te déggoo te war na wurtu wurtu jafe bu ci àdduna génnee rek bu raxul rek dana yomb li may wax ak caa man caa bokk yàlla dogal caa bokk da ngeen fay ñëwoon ba bokk ci ba léegi kon war na maa wax ak yéen kenn laa ci yéen man naa wax war na maa wax ak yéen ak cër cër bi ngeen ma jox mu ñaari cër yooyu laa laa laa ciy waxee kon faw déggoo am waaye mën naa yomb ndax ni ma ni ma ko dégg ay ay ay ay jooyoo ngi ci ay jooyoo ngi ci waaye jooyoo gi li koy dindi rek mooy kii ne liggéey bi liggéey Sëñ Tuubaa la kenn ku kenn ku ne ci yéen mu laxa saa yu jàpp ne day si liggéey Sëñ sédd dara nag ndax lu ngeen ci sédd rek ci wàllu adduna rek du ngeen dem kon déggoo diggi diggi amul solo xool leen xool kenn ku ne la ko la ko ci dugal liggéeyal Sëñ Tuubaa la na na na na dëggu rek dana jeex ko defee ngeen ànd yéen ñëpp ngeen ànd yéen ñëpp xam ne benn liggéey bi benn la lu gën doon doon mbooloo itam liggéey bi benn la sa ngi Sëñ Tuubaa rek kon il faut que ngeen déggoo ci seen biir ndax mooy tax ngeen mën a ànd ndax ànd gi mënu ci ñàkk il faut que ñu déggoo ci seen biir li dox seen diggante ba amul solo yooyu ci am nañ ci am xam naa ne amul solo bu dëggu gi amee rek jublu gi am rek ngeen xam ne Sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal lépp dana na sax lépp dana na sax ngeen xam ne itam nag bu ne société ay société ngi ci ngi ci réew mi waaye benn société boo xam ne war na ci mën a ëpp doole bi daanaka amul il faut ngeen jógaat nag gën ko fas ko gën a gën a dëgëral ngeen koy gën a dëgëral mooy ngeen bañ a te xam ne suñu tubaab liggéeyal ngeen sedd ci li nga xam ne nag mas ma war adduna mi nga xam ne war ko saahir la ak defar rek la masla masla masla baatu arab la mooy mooy yéwénal il faut que nag du ci mën a ñàkk dangeen ko dangeen di dellu saar nag tegaat gën koo tegaat ci yoon société la ngeen gën koo tegaat ci yoon ndax moo leen moo moo moo moo moo doon moo moo daanaka mooy mooy boom gi leen takk boole takk yéen ñépp te ga la ca jiitu mooy ala kulli xaal ngeen il faut ngeen def li li mu laaj da ngeen ko def da ngeen di seet da ngeen da seet ñu xam administration ngeen won leen société bi won leen ñi ko ŋànk ñu xam kenn ku ne la jaadu ci moom ci masla ci àqam ndax ku tënku ku ci tënku ci yoon liggéey bi rek kooku dafa da nga am sa àq bopp. àq jooju il faut ngeen ñi xam ne xam ñi nga xam ne xam ne administration il faut ngeen seet ci ñoo xam ne xam ne leen ñu leen euh, ñi ñi ci tënku ñëpp kenn ku ne lay àqam ñu di ko ko jox loolu euh, mënu see ñàkk ndax euh, liggéey bi rëy na lool te it kawe kon. loolu rek la ñaar yoon rek la. ngeen ñëpp ngeen bakku génn jublu gi xam ne Sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal ngeen wëlbatiku nag dimbali société bi ndax mu gën a ndax mu gën a mu gën a gën a gën a gën a gën a mën a dox waaw loolu nag mooy def maslaa yi ci war ngeen seen ñi xam administration. ñu seetal la ñu seet ngeen gis seen ñi ngi tënku ñi tënku ci liggéey bi kenn ku ne lay ak xam ñu xam ko ñu weer bi dañ jox ko ko loolu mënut a ñàkk loolu mënut ñàkk kon il faut ko ngeen defee ko noonu daanaka kon yar yooyu rekk la ngeen wëttandi ko ak yooyu seen biir lu ngeen mën a juyoo rek lu jikko yu wute rek lu xel xel yu wute rek bi moom benn la ngeen góorgóorlu nag kenn ku ne xeex ak boppam xeex ak boppam focc ucci sànni ucci jikkoom fee xool jublu gi rek ngeen àndandoo ko loolu rek moom mooy mën a am waaye xel yi bokkul jikko yu wutu xel yi bokkul noonu la demee kon déggoo gi jublu gi maslaa bi déggoo gi seen biir jublu gi maslaa bi loolu mënut a ña mënut cee ñàkk ci société bi te ngeen xam ne liggéey liggéey bu rëy la amul benn société boo xam ne yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën a ëpp doole ci Sénégal wala bu ko lu ci ëpp doole bu doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax Sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom la boroomam may te boroom may gi yëmalu ko fenn lu ci mat lu ci xaj yi dana feeñ dana lu ci xat lu ci xaj ci àdduna dana dana feeñ da xam ne xajul sax ci àdduna waaye la ci xaj nag dana feeñ te wërsëg ci la mayam gi wërsëg da cee bokk wërsëg da cee bokk ah, sëñ sëñ Bilane am nañu waxtaan woo xam ne dama ñëw rek ku fekk ci mbooloo mu ñëw fekk mu taxaw ci moom Mourou ma woon njëkkoon a nekk. dama ne sukk moo gërëm sukk nuyu ko mu daal di jàpp suma loxo as mbaar su ndaw su gàtt ngi fi mu daal dem ba ci mbaaram maa moom rek mu toog mu toog ne fa lañ toog ne ma dama laa bëgg a wax. war sugg dana wax tuuti rek. mu ne ma sax dama laa bëgg a wax wërsëg wërsëg murid yi ñu yor fu mu bàyyi ko ma ne tekk di ko déglu bi mu tàmbalee jàppoon naa ne li wax duma ci xam dara waaye xam naa lu mu def ci man mu ne ma wërsëg moom ñëw fi ma nga àllaaxira ab dërëm moo fi ñëw ab dërëm moo fi ñëw mu ne dërëm nag ab dërëm moo fi ñëw <laughs> moo mën ñeenti fi tànk yëpp rasulullahi ko moom tànk bi la ñëpp bokk tànk bi juróom-ñeent yëpp xaram la loolu mooy mooy adduna li xam banque yi fi fasel mun fi fi ak tànk yëpp rasulullahi ko moom mun tànk nag fukk su la juróom-ñeent yëpp xaram la benn bi rek moo ci lew mu ne bi sëriñ bi ñëwee mu ne mu ne rasulullah yi ñeent fukki tànk yooyu ak jaru ñoom fi dafay xaju ndax ñeent fukki at yi amul atte ñaar fukki at yi amul ci jot ñu aj wërsëg woowee ci ñeenteel bi asamaan bi sëriñ bi ñëwee liggéeyal yoon te ba mu gënoon ko ñu aj wërsëg woowee jox ko te jëmul ëllëg jëmul ëllëg noonu sëñ Tuubaa sëñ Sëñ Sëñ moo ko wax moo tax ma ne ma ne li ko li suñu borom li mu may sëriñ bi wërsëg da cee bokk da cee lenn la ci rek lenn rek la ci wërsëg lenn rek la ci kon bu ngeen xooloo xalaatee loolu da ngeen xam ne fi ngeen tàmbalee ak fi ngeen akk ji gaaw gaaw gi gàtt da ngeen xam ko da ngeen ci mën a xamee ne dara la dara ji muy sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek la ak mayam ji mu fenn waaw danga dina am ngeen taw féex nag jóg ne da ngeen di liggéey sëñ Tuubaa ah mu ne gàttal nu leen mu ne dañ si gàttal dara nag du ko yóbbu fa ngeen ko bëggee rek yii ma leen wax il faut que jublu gi day genn mooy liggéey sëñ Tuubaa il faut que ngeen déggu seen biir da ngeen di jikko yéeg xel yee xalaat yeeg yëpp sax génnee leen ko xam naa ne loolu man man daal jaar naa ci loolu xam naa nit na ko sëñ Moussa dama ko daa wax foofu boo may ñëw rek eh, na nga nga xam ne ënd maa ko jikko ënd maa ko xel kon wuur na ma ne jublu gi nga xam moom laaj te ngeen ngeen mën a dox déggoo déggoo la laaj déggoo kenn ku ne day bàyyi ci ko mu xelam ngeen ànd rek jublu ci liggéey bi la ca des mooy seet masaa yi ci war ndax du ci du mën a ñàkk da xam ñu xam ñu xam société ñu xam daraje ñi ci ñi ci tënku di ci liggéey kenn ku ci ne lay àqam ñu ñu du ko du ko jox jublu gi déggoo gi masaa bi waaye da génn jikko yi moom ak xel yi da ngeen koy génne fe sànni leen ko ma man man jaar naa ci xam naa ne mënees na ko dëggu gi rek moo ci am solo dëggu ci Sëriñ Tuubaa rek moo ci am solo dëggu gi rek waaw loolu rek la ca dolli ko mooy bu ngeen fi jógee li tàmbalee tey lépp lu ngeen di liggéeyati na ngeen ko tënk andil ma ma ko lu ca nekk lu ce nekk rek ci loo xam ne mooy tax moo moo koy gàllankoor walla loo xam moo koy tax a dem daanaa ko xam danaa leen ko wax. sëñ Bas. naka moom. kon rek la de. noonu rek la ah la ko nag bi ma bi may déggee digmati yi. Eh, di jooy yeeg yooyu yooyu ba ma dama dama ne lenn lu ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa du ma seetaan mukk ñu di ko rax lu ko nam rax rek naa xam fa ma jaar noonu nag dañ bas na nga ne nan baal bopp lay tàmbalee la nga waxoon alaji baaro digg naa ko maa yow yàlla moo fi nekkoon moom am lu mu laaj nga ne ko man ko du ma digal tere soo kii du ma digal du ma tere soo kii bàyyi naa ko bopp bàyyi ko sama bopp man mii nu laa fas yéene def wala bi yëpp lañu fas yéene def lii nga xam ne moom yëfi sëriñ Tuubaa la yaa fi nekk sëriñ Tuubaa noo ko bëggee rek bàkki doon ko ñu ne amuñu tànn amuñu bëgg lépp tey ni ko ko sëriñ Tuubaa képp dañu ay ay silmaxa lañ lii bi ay te saafara bi poson di xamee ko weñ nag dàbbali ji ab soow waaye xëy ko tax bu tàbbi ci waaye du bañ bëgg góob rek boo tax lu ñu def ñoom te rek la ñun ñëpp dañu jéggal jotaay yi nag dañuy jéggal bu bari mukk ci àdduna ndax bëgguñu laa sori yi war nañu ko delloo fële a dugg ci fii noonu aada ju yëpp dañ ko bàyyi ci àll ba jël suñu toog ma ibadat ñu ngi gën a joxal suñu bopp suñu lépp mbooloo mi ñu ko sa loxo jëbbal nañu ko ngi yaay lépp ci moom

waaw xëy na doomu aadama nag moom nii la demee li nga wax suñu jukki kenn ko amul jikko joo xam ne man moom mii ni ko ma ko wax naa ko dégg suñu mi ne kenn ku nekk suñu saariwu dama ma si yow moom di ko damaa bëgg a ànd nit ñi bëgg a dox ma bëgg nga teg ma ci yoon loolu mën na ko de ji ko benn jikko ko juróom-ñeenti jikkoom mu wéy waaye kenn ko benn jikko jikko ba ma téye ci ñoom xarit kenn mën naa wax lu ma gis nag muy bëgg Sëñ Tuubaa. Ah, waaw noonu rek la loolu ci ñoom de. Eh, di baax loolu ci ñoom. <laughs> kenn mën naa yàq doomu aadama nag. la kenn ku ne téye naa ci kenn mën naa yàq sama morom ci. tarkal la lu ma ci dox kenn maa ngi ñëw ñëpp daal. ndax bis nga tey. yow mi xam ne bopp xar a ŋànk. ŋànkal suñu bopp bi xar na. dimbali ñu ngi Sëñ Tuubaa. ba loo loo xam ne dama ko ànd ak yéen dama ko a ànd maa ngi seen lu xew lu mu mën a doon rek waxuma sax mu ci mën a doon rek. lu ko jaree danaa ko yëg. waaw ñun daal lu ñu def lu ñu def ba xew rek waaye yàq xam rek la. Mm. ba dama aadama glace mu xër ay doomu aadama ñu juddoo mangu fi yaroo. dëgg la il faut que ñu jaxasoo rek. dëgg la jikko dana am jikko jikko yi bi rek. dëgg la jël te jar yi mooy mooy sëñ bi. waaw ñu ngi a ñu suñu bopp de gën a mbooloo bi ak pas-pas yëpp nga téye ko. pas-pas bii nga woote. pas-pas bii nga woote nga ñëw yoon ndax loo am na nga ko toppee la ko may na nga toppee lu mënut may doomu aadama amut. ma maa wax maa wax woon. waaw man sama kilifa. waaw dama koy bàyyi laa jëlee ba ba ci jotaay. waaw ñun seer yàlla la sa bopp. jërëjëf lu ñu lu ñu tere. na nga loo am rek na nga <laughs> te nit ku waa ngeen nga am kilifa la doo doo jiw ma si bu kon jox na suñu lépp gi Sëñ Tuubaa jërëjëf ñuy jégul kàddu yi yëkkati barkala jërëjëf Mbàkke jërëjëf amiin